voilà ñoom ñu njëkkee ci Wally Seck euh, euh, Wally Seck ci boppam nee nañ dañu ko. Euh, séquestré. enlèvement la. dañu ko enl dañ ko dañ ko séquestré dañ ko enlevé ba pare daal di ko séquestré. Mm-hmm. ay noonu demee noonu. Ah, ay ñu ay ñu sol ay masques yooyu. comme ci film Hollywood yooyu. daal di ko enlevé ah am fuñ ko denc. Wally Seck daal di daal di daal di mer mer. donc ma bàyyi la nga daal di développé <laughs> nan la démé ñun daal non lañ ko yëgee. Mhm. revue de presse lañ ko gisee paraît-il que wa direct info ñom ñoo joxé information. bi mhm, mhm. selon laquelle Wally Balago sec dañ ko dañ ko séquestré. dañ ko enlevé des. enlèvement la woon enlèvement la euh, des hommes euh, encagoulés ñu sol ay masque yu noirs. ñoom ñoo jël enlevé ko séquestré ko. yoroon né ay armes wala. wa né nañ tamit ils étaient dans une voiture euh, noire. 4x4 waaw je vois. fi wax aussi parce que mm-hmm. euh, euh, enlèvement c'est dû mm-hmm. parce que nous dañ leen waxoon pour ñu tëggal leen soirée mm-hmm. léegi moom bi mu jógee Zénith bi mooy leen dafa sonn du mën a tëgg soirée bi ñu séquestré ko yomb na de mais euh, loolu doy na parce que nous, niruwul est-ce que coco, joxu joxuñ ko avancé cinquante millions ay avance mbër yooyu ak wax ju rëy et puis loolu ça fait pas trop sénégalais man loolu ça fait plus ben film Hollywood donc man comprendre ma naka la artiste sénégalais war jouer fenn parce que jouer wul parce que lekk Casamance bi ñu war ko séquestrer war ko bi war ko séquestrer mm. euh sol ay masque loolu c'est pas sénégalais. film yi ñuy seetaan moo est-ce que du intox waaw Macky tey ñu ngi am fi euh, Cheikh Bamba Faye moom moo nekk euh, euh, président li nga xam ne moo nekk maison des gardes du corps Cheikh Bamba Faye nag loolu nga xam ne ñu wax naan mooy enlèvement bi nga xam ne moom lañ defoon Wali Balago Seck nekk woon lu nga xam ne lu lu mise en scène mise en scène boo xam ne moom mi nga xam ne mooy Cheikh Bamba Faye ñu am ko fii nii au téléphone moom moo ko orchestré woon ñu bàyyi ko rek mu expliquer lan moo nekkoon raison mise en scène boobu noonu def ko buzz ñu ne Wally dañ ko enlever alors que loolu amul Cheikh Bamba yow la ñu déglu waaw jërëjëfati Mati jërëjëf sëñ Salim Mbacke sa dëkk jaamu sëñ Salim Mbacke yàlla na yàlla na góor donc maa ngi leen di fay di leen ne donc problème bi amoon fan yëpp ñuy coow naan wàllu dañ ko enlever ak ay homme encagoulé donc c' était parce que ñun dafa am benn soirée xam ne ñu ngi koy préparé la 15 juin muy soirée sagar Kader Ndiaye bu TSE donc pour defoon benn lancement dañoo yónni woon ay nit comme ku mel ne Cheikh Ndiaye ak euh, ji ñu dem fekk Waly ne ko dañoo bëggoon nga tëgal ñu soirée dafa am ñu ñu yónni woon euh, Waly na leen tan moo la ñu yónni euh, la maison des gardes du corps seen président moo ñu yónni woon bëggoon tëgg benn soirée le 15 juin pour nga tëgal leen ko Waly ne non moom mënut a tëgg soirée mënut a tëgg parce que dafa sonn def mu jóge Zénith day noppale ko bu après xor gi gars yi insisté insisté Waly bañ gars yi ne ko pourtant ay garde corps moo ñu yónni Waly ne non garde corps ak moo ci dem tëgguma génn bi mu génnee juste noonu après expliqué ñu ko euh, ma yónni fa samay équipe équipe bi dem fa donc des hommes cagoulés seen cagoule ak seen fusil yi dugg euh, donc que fois li enlevé ko génn ak moom dugg si benn 4x4 boo xam ne c'est sans plaque dem ak moom euh, boobu man maa ngi monument renaissance ba koy xaar bu ñu ñëwee livré ma ko ma toog expliqué waat na ko yow yaay kan ba askan bi soxla la pour nga tëgal leen soirée nga bañ ne doo leen tëgal waa li tiit ne moom la maison des gardes du corps muy soir boobu nga xam ne dañ ko jagleel eh, Abdel Kader Ndiaye bu deux le frère de Cheikh Amar euh, ñu ne ko donc da ngay def message parce que këyit tubaab ak juge keet la xam donc waa li jël engagement que ne mom nañu tëggal le 15 juin euh, penc mi soirée bobu ñuy def muy soirée euh, sargal Ablaye Ndiaye donc après ñu woo par quelques journalistes ci goudi bi explique le ne na waa li dañ ko enlever biñ leen waxee loolu ñoom ñu xëy bind seen journal ne Wally enlevé nañ ko dem si guddi am ñu ne enlevé nañ ko am ñu ne enlevé wuñ ko donc am ñoo xam ne ñoom ñu ngi si doon insé naan ñu woon ak Wally euh, moment boobu te moment boobu nekk ñu woon ak Wally ñoo nekkoon ak Wally euh, ma jël ay quelques photos si film bi nga xam ne dañ ko war a dawal pour publier

mais yéen touriste ngeen ci jublu woon Wally était d' accord et mooy kon donc dil la woon entre yéen Wally parce que da doon def genre publicité publicité boo xam ne da ngeen ko bëggoon a jox buzz mais est que jaroon na ngeen utiliser li nga xam ne moom moo nekk la presse ba nga xam ne gars jël ko au sérieux xëy un bon jour daal dañ ko ah, dañ ko enlevé xam nga donc ñun publicité la ñu bëggoon fii ku nekk booy jaay sa marchandise da ngay xool nu nu mu jaree euh, euh, bi ñu vérifier si réellement lii am na wala amul ñu dool ci wax mais dañ leen wax ñu bind donc bi ñuy bindee aussi ñoom ñu ngi doon wante seen biir am ñu ne am na am ñu ne amul mois bi nga xam ne ñu koy tourné c'était aux environs de dix-neuf heures am na ñoo xam ne taxaw nañ ne mois boobu ñoom ñu ngi ko waal yi te mois boobu loolu amul ma bàyyi leen dëkk bi ku nekk coow wax wax ba ay dix événement am na ñoom topp nañ trace bi wax nañ alors que Wally mu ngi woon këram donc kenn enlevé ko mu ngi si jàmm mu ngi sant sëñ Tuubaa baax a baax donc dara dal Wally c'était juste benn pub te pub bi bu dee à partir de demain incha allah si télévision yi di ngeen xam ne pub la woon

donc man aussi euh bañu jegee ñi nga xamante ñom ñoo yor management bi ñom ñoo euh, nek staffu wali mhm. bañ leen ko waxé affaire bi daf leen métier mhm. parce que nénañ nañ mënuñ comprendre euh, journalisme euh, fi Sénégal dafa dafa dafa commencé tumuranke mhm. ndax information ni ñu koy traité à beaucoup de légèreté té lolu warul ndax lolu waru muy télé di radio di presse écrite dafa nek ben arme bu grave bo xamante ne kenn waru koo fooye donc ñom ci seen bopp nénañu wali sék dara daluko kenn mosu que séquestré enlèvement amul. Mhm. moom ci boppam defe naa répliqué na. répliqué na sur sa page Facebook. Mhm. wax na rassurer euh, ses fans né leen dara jotu ko. Mhm. tey joxoon na rendez-vous à ses fans mu nekkoon mercredi bi passé tëgg parce que mardi la information boobu génn mercredi. Euh, moom tëgg na même jour bi tëgg na foofu nga xam ne moo nekk ci penc mi. aussi binne sur sa page Facebook que il se porte à merveille. il se porte comme un chef. comme un charme voilà comme un charme. macha allah amul dara lu ko jot kenn enlevé au ko il ne doit rien personne. voilà donc de lern leer na euh, mbir mi mhm. dara jotu ko amelu Ken lenn enlevé Birmi enlever